asalaamaaleykum euh, président Ibrahima Gueye président ADEPS ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la wax ni ñoo ngi lay dalal fii bu baax di wax aussi lan mooy sa teewaay fi nga xamante ni moom mooy euh, organisation bi nga xamante waa PASTEF HLM def nañ ko en collaboration avec waa défenseur du projet de PASTEF. waaw di nuyu ñëpp rek di wax ne ñu ngi tudd Ibrahima Gueye donc di coordonné benn mouvement dénommé ADEPS Alliance pour le développement l'entente et la promotion sociale pour le Sénégal. donc dañ fi ñëw nag en tant que doomu HLM doomu commune bi alors euh, yëg ne tey dañuy def benn don de sang suñu xaritu waa Pastef di ko def alors euh, ñu invité ñu suñu xarit bu ñuy wax abu Ndiaye alors euh, ñu def benn un acte citoyen présent fii pour def benn don de sang c'est ça. bien donc euh, tey si tey lan nga mën a wax euh, citoyens sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi si fii si Sénégal bëgg a maye deret yi tout parce que boo xoolee acte citoyenneté dafa am solo boo xoolee yéen loolu ngeen di woote yàgg si def ay mouvement yi tout ça yéen ban lancé appel ngeen di def pour ñi nga xamante ni mayeguñu deret ñu ñëw maye deret. waaw wax dëgg yàlla lii moom euh, c'est un acte noble donc di ci woo toute la population de la commune des HLM Euh, woote askan bi la donc loo ci def rek je crois que sa bopp nga ko defal alors euh, surtout nag su fekkee ne nag ay doomu HLM ñoo ko wootee su fekkee ne dañu nekk un acteur communautaire nekk ci commune bi donc suñu wootee lu mel nii euh, dañ ci war a mën a teew donc c'était par rapport à ça donc di sensibiliser ñëpp rek di wax ne maye direct daal am na am na njëriñ am na solo lool macha allah. léegi ban appel nga mën a def concernant ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa PASTEF HLM en collaboration avec les projets de Sonko donc ñoom ñi nga xamante ni ñoo ngi def organisation bi yow ban appel ak ban encouragement nga leen di def nga leen di bàyyi. waaw di leen encourager rek vraiment ci acte bi nga xam ne moom la ñuy lancé si projet bi nga xam ne donc moom la seen leader lancé muy Ousmane Sonko donc a travers nag commune bi ñoo xam si suñu xarit Abou ak ñoom Maka Suba ñoom ñëpp donc di wax ne daal lii am nañ njëriñ trop projet la boo xam ne daal euh, nit ñi daal am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar te am nañ ci yéene goo xam ne tamit yéene bu rafet la rek macha allah. Hmm. léegi yow boo leen doon lancé tey benn idée boo xamante ne war nañ ko mën a defaat concernant li nga xamante ne moom mooy événement yi ñuy organiser comme don de sang ak yeneen événement yéen ban projet nga leen mën a proposé pour événement bi bu ñu si jógee. waaw projet nag bëri na mon frère donc euh, au de la commune moom. Euh, commune bi moom li muy souffrir bëri na il y a beaucoup d'insuffisance il a beaucoup de tard tant sur le plan de l'éducation sur la santé donc euh, et dans le cadre du sociale donc euh, lu ci nekk daal am nañ ci approche yoo xam ne je crois que ñoom à leur sein bu ñu toogee étudier ko rek donc mun na ñu ci lool rek véhiculer ay messages yoo xam ne rek ku nekk dina ci gis sa bopp quoi waaw projet yi moom bëri na trop trop. jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu di leen ñaanal yàlla di sàkku si yéen ñaan aussi donc euh, vous me permettrez avant l'entame de mes propos de remercier la jeunesse patriotique HLMoise ainsi que les défenseurs euh, du projet donc euh, di leen sant di leen gërëm bu baax ci initiative bi parce que quoi qu'on dise en donnant de, du sang on sauve des vies te loolu tamit baax na ci ci jaamu yàlla bokk Donc, euh, permettez-moi aussi de, de, vous préciser qu'on est ici euh, au, collège euh, Docteur Sambegueï, euh, où j'ai fait mes premières humanités scolaires hein, secondaires ici. C'est derrière cette classe-là que j'ai eu mon brevet au début des années 80, sous la houlette de l'ambassadeur euh, Cheikh Diallo, qui fut notre principal. Hein, c'est le lieu de rendre hommage aussi les professeurs qui m'ont marqué ici. Hein. Je pense à, monsieur M. Dia, professeur du géo, monsieur, monsieur, monsieur Sec, professeur d'histoire géo, parce que voilà, c'était la matière où j'étais la plupart du temps la, euh, premier. Quoi. Je pense aussi à monsieur Amadi qui m'a fait aimer les mathématiques euh, et tant d'autres. waaw c'est les c'est le moment de les rendre hommage donc euh, euh nous prions que cet événement euh, que, que cette que don euh, cette collecte de dons de sang soit pérennisée ah euh, loolu laa leen di ñaan pourquoi pas semestriellement ou annuellement ah parce que di ngeen ci am yàlla di ngeen ci am nit ñi c'est c'est c'est très important Euh, n'ignorez pas que la plupart des euh, collègues, euh, la plupart euh, des hôpitaux manque de sans les collectes de dons de sang euh, bu fekkee ne vraiment acte yi mën nañ ko def sem ko def semestriellement ou bien annuellement dina tax euh, le centre national de transfusion sanguine mën a absorber ou bien nu mu tuddati gérer ou bien déficit de, banque de sang yi am euh, à travers les hôpitaux en tout cas par ma voix et euh, moi Abou euh, coordonnateur adjoint de de de Pastef HLM adjoint au maire au nom de la municipalité et au nom de de, de nous vous remercions infiniment ok monsieur Abou Ndiaye étant euh, l'adjoint maire de la commune des HLM euh, ban kàddu li war a dénk ñi nga xamante ne ñoom ñooy les défenseurs de projet ak ñi nga xamante ne mooy waa commune de HLM que euh, wax naa ko rek xam naa dama koy réitérer réitérer réitérer leen ko mooy action yi ngeen bu leen ko bàyyi bu leen ko bàyyi parce que tout simplement en faisant ça vous sauvez des vies n'est-ce pas Euh, banque de sang yi dafa dafa dafa ma wax na ko le le le le major m'a dit ça j'ai entendu une des infirmières euh, bon maa ngi leen di rendre hommage comme quand même les les civils militaires yi fi nekk de l'IHO wax nañ ko dañu manqué bu ñu amee stock même pas une semaine deux semaines mu jeex donc euh, en faisant ça on sauve des vies et bu ñu ko ñàkkee tamit musiba la donc dama leen di ñaan yéen. am na loo xam ne ñu mënatu mutuñu ko on ne fait que vous accompagner li ci li li xale mën moins de trente cinq ans moins de quarante ans ñu ñi nga xam ne on na plus de on est au crépuscule de notre retraite mënatuñu mënatuñu ko ñu leen di exhorter aussi ngeen faire euh, vous faites de même euh, envers vos amis vos vos entourages vos parents afin que ñu relever le défi n'est-ce pas ban appel ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo dëkk HLM fii pour ñu ñëw def li nga xamante ni moom mooy journée. vous avez fait le nécessaire nous de même aussi on a à travers les chefs de quartier les délégués de quartier les les les les les, les, les lanceurs d'alerte les, porteurs de voix euh, les bilal imam et cetera communique euh, communiquer ñu à travers euh, les mosquées euh, à travers l'église ñu véhiculer marché euh, information bi te def nañ ko pas plus tard hier au niveau de la grande mosquée euh, on a informé euh, et allah xam naa gars yi ngi tëdd di nelaw mais fii ak midi oh, incha allah dinañ atteindre yéen di atteindre seen objectif dama xamul ndax ñaata la mais je sais que je sais pertinemment que di ngeen atteindre seen objectif. lan mooy doon sa kàddu kàddu gu mujj. waaw mooy di leen gërëm rek di leen santaat di dëggal wax ji mooy dama bëgg. ah leen buggee ñun ñu féex bàyyi leen ak affaire yi ah eh, wane ngeen ko mooy chaque semestre chaque semestre wa ilaa chaque année ñu mën a organiser lii incha allah yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf merci jërëjëf monsieur le maire. di kontaan bu baax ci suñu teewaay fii ah euh, vraiment euh, lii lañ doon xaar ci jeunesse bi lii lañ doon xaar ci euh, patriotes yi. ah te vraiment ñu ngi ci yoon wi waaw yàlla buñ ko wàcc benn yoon euh, fan yi nag seetlu nañ ni euh, accident yi bari na lool ci réew mi moo tax ñu ñëwoon ci euh, don de sang bi ah may ñëw maye waale deret comme suñuy morom rek xam nga voilà donc aussi di wax rek ne gouvernement bi na bàyyi xel bu baax ci ne askan wi Euh, côté santé bi war nañ leen cee taxawu waaw euh, parce que tamit euh, la santé avant tout parce que askan wi booy xool daanaka li ñu gën a bëgg mooy ku leen taxawu ci wàllu wér-gi-yaram métti na trop boo xoolee ci hôpital yi nga xamante ne ñu ngi fay dem tey li ñuy daj kenn mënulu ko wax yërëm nañ ci askan wi lool te bokkoon na ci suñu combat ba tax na ñu tëdd ci prison am na ñu ci dee am na ñi nga xamante ni seet ji naa leen bërki démb yàggul dara ah ñu ngi ñu ngi euh, hôpital Sami ci ay blessé ya nga xamante ni euh, ba léegi ñu ngi ñu ngi ci hôpital ba génnaguñu ah donc combat bi nga xamante ni ñun xeex nañ ko ba tey ñoom ñu jot ci réew mi euh, gëm nañ ni ah askan wi yëpp war nañ cee mën a gis seen bopp yàkkamti wuñu benn yoon nag ci liggéey bi ñuy def te gëm nañ ni. Euh, incha allah dinañ ko réussir dinañ réussir euh, liggéey bi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci donc ñun euh, du ñu def lu dul appuyer leen voilà jàppale leen bu baax parce que ñun tamit suñu taxawaay foog nañ ni ñun lool moo ñu war voilà regretté wuñu prison bi ñuy jaar regretté wuñu ah vraiment pas li blessé yi nga xamante ni. am nañ ko ci aussi waaw euh, di masawu ñi nga xamante ni seen bakkan wàññeeku na ci combat bi waaw mais euh, tey euh, tànk yi nga xamante ni jeunesse bi jël nañ ko rawatina les patriotes ah surtout GPS les GPS là yi nga xamante ni ñoo nekk ci cellule cellule yu façon yu bari yi ci yenn cellules yi donc ñun du ñu def lu dul euh, di leen remercier ci seen liggéey bi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci te bàyyiguñu boobu ba léegi tey la ñu gën a jàpp ci combat bi ñun ñu ngi ci seen ginnaaw di leen appuyer ak di leen jàppale bu baax gis nañ ni ñu ngi ci tànku Yewwi Yewwi Askan Wi waaw gis nañ ni ñoom ñu ngi ci tànk Yewwi Askan Wi et que euh, foofu lañ leen doon xaar te tey ñu nga fa ñu ngi kontaan bu baax ah ci euh, waa HLM. waa HLM la euh, ñoom ñoo doon organiser euh, kii Pastef bu HLM ñoom ñoo doon organiser euh, lii nga xamante ne mooy journée don de sang bi ah vraiment ñu di leen remercier ci taxawaay bi nga xamante ni ñoom amaloon nañ ko waaw ñun nag du ñu def lu dul kontaan waaw bu ñu gisee yu mel nii ñun dañ ciy ñëw waaw parce que lii rek a tax ñu doon xeex waaw lii rek moo tax ñu doon xeex donc di ko waxal rek gouvernement bi nañu bàyyi xel bu baax askan wi gestu leen waat bu baax ci côté santé bi parce que lu ñu soxla la waaw métti na trop mais euh, yàkkam euh, yàkkamtiwuñu daal yàkkamtiwuñu nañ jël seen temps ñuy wax nag nañ leen bàyyi ñuy wax rek ñoom li ñu xamul mooy ne ñoom lu leen naqari suba ba jant soo ñun neex nañu waaw ñun moom nañu liggéey rek te bañ a wax wax ju bari ji daal foog naan jaratu ko jërë ngeen jëf merci beaucoup. maman ñoo ngi lay ziar. alhamdulilah maa ngi leen di delloo ziar leen nuyu. di rafetlu liggéey bu rafet bi ngeen def parce que maye deret moom dafa bokk sax ci jaamu yàlla parce que yaa ngi fekk nit boo xam ne soxla na deret tey nga jël sa deret jox ko dundal nga ko ndax maye deret dafa am solo premièrement di nga ci am sa santé dinañu xool lu la daal man damay maye deret chaque trois mois damay dem fan di maye ji deret parce que loolu ci jaamu yàlla la bokk depuis ma dégg ko maam bi jaw wax ko man mii maa ngi sensibiliser nit ñi pour ñu mayee deret léegi lañ may filmer pour man def ko statut pour ñu ñëw ma bëgg HLM ñu génn si maye deret parce que accident yi bari na feebar yi bari na te am na yenn feebar yoo xamante ne nii pour nga mën a faj foog nga joxee deret donc maye deret du dara gis nga man abs de temps laa toog rek ñu jël sama deret macha allah ñu jox ma sama sandwich te buñ ma joxul woon sandwich sax sandwich bi taxuma jóg mais man maye deret bi dafa bokk ci li may dund. ndax dama dund mayee deret te dama yàgg mayee deret kon maa leen di ñaanal balaa ngeen fee jógee yal na poche yëpp fees yal na ñu toog ba kenn dootul soxla deret gars yi génn si leen ngeen mayee deret waaw maman yow depuis sa fajar li la fi gis lan moo indi motivation bi tey si tey en tant que yaay en tant que ki nga xamante ne bàjjonu gox yow ban motivation moo la poussé ba tey nga ñëw teel pour mayee deret yaa ngi ni maye nga deret ba pare. xam nga li tax ma indi lii man dama amoon malaat boo xam ne dañ ko daan may deret donc pour ma dem ñu may ko deret damay sonn léegi damay obligé man jël sama bopp jël ci sama famille wala ma dem jël ay nit ñu may ko deret pour pour moom mu mën a faju donc ma tàmmee ci loolu ba nga xamante ni chaque trois mois damay dem fan maye ji deret loolu yokk na ci li ma gën a marqué moo tax ma bëgg ñëpp di ñëw di mayee deret ba nga xamante ni bu ëllëgee ku soxla deret dootoo dootu leen ko sax ñaanati parce que ne jamono jii ñu toll nii nit ñi soxla nañu deret te nit ñi mën nañoo maye deret kon nañu génn si ñëw maye deret ndax ëllëg xamoo di nga am malade boo xamante ne nii dina soxla deret pour nga ñëw may ko deret te bu boobaa di nga sonn te ku dul maye kenn du la may kon na HLM ñoo génn na nit ñi di génn di maye deret yi parce que c'est très important maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup suñu tata jërëjëf merci beaucoup tata donc. La journée du don de sang avec euh, les défenseurs voilà. waaw message yu ñu mën a lancer ndaw Sénégal déjà di leen ndokale ndokkale bu baax a baax ci victoire écrasante bi ñu am ba liggéey bi tàmbali au premier tour déjà mais di leen wax ni que dafa am ay activités yoo xamante ni comme don de sang comme Kordo Abou lu mu wax léegi rek xaar sax organisation am. wala kenn organiser ko ñuy dem di manière dafa war a doon une culture boo xamante ni dafay dafay dafay dafay sax si ñun ba nga xamante ni fu ñu dégg doon ressent benn wala ñun bu ñu toogee sax ba nga xamante ni leer nañu am na ay accident yu am wala am na ay jigéen yoo xamante ni dañuy manqué deret lors de leurs accouchements war nañ mën a dem ñu maye deret gratuitement loo xamante ni c'est humain quoi ñu jàpp ci bu baax a baax je pense que c'est très important ok bi nga xamante ni tey am collaboration ñi nga xamante ni mooy les patriotes HLM mooy secret bi. mooy liggéey secret bi mooy constance secret bi mooy fixer des objectifs et essayer de les atteindre. am na yeneen activités yu nekk suñu kanam mais comme ni ma la ko waxee comme ci don de sang bi lañ nekk dañuy gën a taxaw ci don de sang bi dafa nekk lu important sénégalais dafa war am culture di maye deret pour sauver son prochain. et sauver son prochain maanaam mooy aar sa sa environnement aar fi nga nekk ba nga xamante gi ni jafe-jafe bu bu sa morom nekk war nga ko si mën a génnee mais nag bu dee si si si côté santé la maye deret rek mooy mooy mooy mooy mooy solution bi moo tax gars yi di ko organiser et projet bi aussi da dafa bokk ci li nga xamante ni maye deret dañ ko privilégié parce que xam nañ ni ça sauve des vies évidemment waaw euh, au niveau au niveau communal ñu ngi ci liggéey bu baax a baax mais au niveau départemental on a mis en place un programme boo xamante ki nii bon dina génn ci ci ci fan yu néew ñu ngi ci liggéey nag ça ça c'est c'est pas encore abouti moo tax mënuñu ci avancer bu baax a baax mais bu génnee rek ñëpp dinañ xamante ki nii GPS mu ngi liggéey ci programme yi nga xamante ki ni moom la ñuy fekk moom la ñu moom moom la ñu nar a fekk suñu kanam pour mën a jëmal projet bi parce que foog ñu taxaw jeunesse bi mooy parti bi

yabuñu ay mala yabuñu ay yeneen yabuñu leneen daal ay nit la ñuy yab kon war nañ mën a daw nank di moytu wala di moytu ndiku li nga xamante ni mooy accident yi si tali parce que mi ngi mi ngi mi ngi am quand même benn recrudescence boo xamante ni c'est c'est c'est déplorable aussi c'est c'est devenu un scandale en fait c'est c'est donc voilà ñu ñoom ñu jëm si baaxel xel bu baax a baax ku nekk di jéem a moytu sa ku nekk su moytoo sa morom collision du am et puis dinañ mën a dinañ mën a doxal si jàmm sans pour autant accident yi yokku mais Euh, peut-être benn question bu amul rapport kii mooy dernière sortie président Ousmane Sonko ak Mélenchon gis ngeen collègue ñu jur notamment wàllu góor jigéen yi euh, euh, waa Jamra woote tey conférence de presse yéen ban en tant que ndaw parti bi ban taxawaay gi wala ban kàddu ngeen am ci kàddu yooyu nga xam ne Mélenchon wax na ko fële ci université liggéey àndandoog sénégalais yi àndandoog jeunesse bi dem ci kanam bañ a di <laughs> répondre à la provocation entre guillemets parce que soo nekkee ci yoonu liggéey moom am na li lay li lay faagaagal dafay bëri ba nga xamante ni booy tourner di tourner di tourner rek amaana dangay ngay dellu ginnaaw daal te ñun li ñu woote moom mooy jub jubal jubanti ku ci gis leneen nag boo ko ciy jéem a dugal ah loolu de yow yaa ko gis waaye su boobu su liggéey bi antoo di nga xam ne jub jubal jubanti slogan boobu noonu moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee te incha allahu Sénégal fu ko sénégalais di yaakaar ñun la JPS avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak euh, président Ousmane Sonko premier ministre dinañ ko fa yóbbu incha allahu rabi waaw message boobu moom maa ngi koy lancé bu baax a baax di wax na gars liggéey ñu jéem a avancé dem si kanam bañ a di gestu parce que boo gestoo rek da ngay tardé baax na jërë ngeen jëf. waaw ah, salaamaaleykum. ñu nuyu ñëpp di leen ziar maa ngi tudd Abdou Khadir Diop nekk secretaire général ci mouvement les défenseur du projet de PASTEF waaw di leen di di rafet rafetlu tey suñu journée tey bi di si woo nag euh, ñëpp di si woo parce que lii. acte citoyen la te dara gënu koo noble suñu sañoon nag euh, ñëpp ñëw wuy suñu ndax euh, lépp ci ci ci développement bi la bokk ndax lii moom doonu lu ñuy xeeb waaw ñu ngi ciy woo daal sénégalais yëpp. Euh, nga nekk mhm. bon tey booy xool défenseur nekkul na bu dëkk HLM am na ñoo xam ne ñoo ngi mbuur ñu ngi feneen ak feneen ci Sénégal. am na ñoo xam ne nekkuñu Sénégal tey acte yu ñuy prévoir lu ci mel ni don de sang reboisement mun na am seet setal yi ak yeneen yoo xam ne programme yoo xam ne ñu ngi ciy xalaat nga xam ne bu ñu jógee ci lii incha allah moom la ñuy prévoir pour def ko d'ici peu de temps incha allah. Euh, seen adversaire yi rencontre bi président Ousmane Sonko def ponk yu bëri yoo xam te notamment lu dem ci wàllum souveraineté monétaire bi xam ne Ousmane Sonko wax na ko. Mhm. mais également wàllum góor jigéen nga xam ne tey waa Jamra woote nañ conférence de presse man li may wax euh, bëriwul ku seetaan keroog Ousmane Sonko dégg li mu wax ñëpp xam nañ ne joxe na si position bu claire te sénégalais yëpp loolu lañ doon xaar dañoo jàkkaarloo ñoo xam ne nag. manipulation moom mooy seen seen mbir quoi chaque jour ñu ngi xool nu ñuy jéema yàqee commencé ko ci observateur ak waa parce que lii ñuy def Ousmane Sonko ak Diomaye projet bu ñu yor projet Sénégal la pour Sénégal baax la ñëpp gis seen bopp moo échec kon dañoo war a teg politique bi fële yàq ñu teg ko fële ñu bu ñu élection mu ngi jub su nag samp ndëndëm mu samp ndëndëm ku mën sa mais jamono ji ñu woote te comme moom nu mu koy doxalee rek patt ak organiser liggéey lu muy liggéey ñu bàyyi leen ak wax ji ak am manipulation parce que ñoom ci loolu lañ dëkk mbirum góor jigéen ñëpp xam nañ ne du musa am Sénégal tey majorité biir assemblée dugal nañ fa ñaata yoon proposition de loi pour ñu voter ko mais dañ koy rejeté alors kon kan moo kan moo fi bëgg mbirum góor jigéen ñoom la ñun depuis lors ñu ngi proposé kon daal pour man loolu du débat ya ay yàqkat kese lañ waaw te ñun daal dinañ défendre projet bi dinañ défendre Ousmane Sonko défendre Diomaye jàppale leen si liggéey bi ndax du ñu toog seetaan leen dañoo xeex ba nekk au pouvoir dañuy xeex maintenir suñu bopp au pouvoir te ñoom dinañ yàgg ci opposition bi incha allah. en tant que secrétaire général bi xamante ni moom mooy les défenseurs de projet ban taxawaay ngeen war a mën a pour ñi nga xamante ñu bëgg a intégrer si mouvement bi ak lan mooy seen secret ba tax na projet de Sonko bi yegg si fii. bon booy xool ñun tey euh, boo xoolee les défenseurs du projet ñun dañuy dem ak suñuy propres moyens te. dañoo booloo nekk benn xooluñu ma sàmba wala ma demba képp koo xam ne gis nañ ne yow war nga mën a jàpp si liggéey bi rek dañ lay woo nga ñëw mais nag bëgguñu si ay caaxaan parce que tey ah, ñun néew di liggéey lu am solo moo gën ñuy bëri te du ñu def lu am solo kon daal ñu ngi ciy woo nit ñoo xam ne engagé wu nañ pare nañ pour dugal si seen seen i coonoog lépp ngir projet bi avancé ñun ñooñu lañ ciy xaar mais pas ñoo xam ne dañuy ñëw juste pour la forme parce que am na ñoo xam ne pour wante dëgg projet Ousmane Sonko bi am ñoo xam ne businessman lañ si lañ si nekk dañoo ñëw pour ut si tour ak leneen mais soxla wuñu loolu dañoo soxla ñoo xam ne dañoo pare pour Sénégal avancer ñëpp gis si suñu bopp parce que ñu jeunesse bi dañoo sonn da jàng ba yow say diplôme ba pare toog di chômer parents yi fay ba loolu dafa war a jeex waaw loolu daal lañ siy xaar d'ailleurs ci wàllum nomination yi projet bi loo xam te ni dañoo yow projet bi ngay défendre appel à candidature amagul ba léegi. mais ku xam appel à candidature xam ne yooyu boo ko bëggee def dina jël temps pour nga mettre en place li nga war a mettre en place yëpp te booy xool suñu projet ci livre solution waxuñu ne post yëpp la ñuy def appel à candidature certains wax dañoo préciser. am na avec le temps bu si li ñu war a teg ko fësal incha allah ñu liggéey ñu avancé waaw. ok ban kàddu ngay dénk ñi nga xamante ni moom mooy waa HLM Pastef ñoom ñi nga xamante ni da ngeen nekk ñoom en collaboration depuis un certain temps di def liggéey bu am solo ban appel nga leen di dénk. waaw di leen euh, remercier parce que li ñu def vraiment kontaan nañ si trop parce que ñëw nañ accueillir ñu boole ñu seen bopp xam ne lépp daal c'est le Sénégal ki gañ ñu leen di remercier te ñaan Euh, yeneen programme ñu bokkook ñoom parce que lépp c'est le projet waaw loolu daal la ñuy la ñuy dañ leen di sant daal leen si gërëm. président communément HLM ñu lay nuyu. Euh, maaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziar di nuyu tous les membres de PASTEF HLM et PASTEF euh, région de Dakar e les défenseurs du projet de PASTEF aussi. la moo waral sa teewaay tey fii nii nga xamante ni moom mooy siège bi. bon tey dañu ñëwoon si invitation suñuy jeune frère suñuy euh, dëkkandoo ci benn geste boo xamante ne appel bu noble la muy don de sang pour xam situation actuelle bi dans les hôpitaux nga xamante ne l'heure est grave donc les gens doivent réfléchir pour xam vraiment fan la dëkk bi toll mu bañ am benn coloration politique ñu xamante ne maye deret c'est quelque chose boo xamante ne c'est vital comme ni ma koy waxee souvent da nga koy maye te xamuloo kan lay jëriñ donc si loolu moo tax ñu ñëw en tant que association de veille et d' alerte de la commune des HLM ñu koy wax HLM ma commune ma nekk le coordonnateur donc euh, y' a pas mal de membres yoo xamante ne certes ñëw nañu wala ñeneen ñu ngi si yoon bi di ñëw on le fait waaw euh, c' est un geste boo xamante ne daal c' est un geste naturel et bien pour la la population du Sénégal. léegi yow da nga ñëw pour maye deret wala da nga ñëw pour euh, def taxawaay xool ñi nga xamante ni mooy euh, les Pastef HLM wala ñi nga xamante mooy les projets de Sonko danga nga ñëw rek pour maye deret wala da nga ñëw pour xool seen taxawaay. non man dama ñëw pour maye deret man je suis un donneur depuis 86 donc je donne régulièrement mon sang pour le pour les pour les malades Sénégal. Ah, macha allah léegi yow ban lancement ngay def concernant ñi nga xamante ni ñoom ñooy HLM mooy lan ban taxawaay la ñu war a am pour ñëw maye deret yow ban appel nga leen di lancer. non appel bi mooy bi ñuy def toujours ñun on lii dañ koy def depuis on le fait avec d' autres associations avec d' euh, centres yoo xamante ne dañuy di si di woo donc li may waxaat waa HLM yëpp rek mooy nañu am culture di maye deret en fait du du waruñu sax toog comme ñuy def comme appel yi naan dañuy dem di may deret nit ñi ils doivent savoir que man chaque trois mois dama war a dem pour may culture boobu noonu bu ko population bi yëpp amee muy les jeunes muy les vieux muy les moins vieux comme ñun je pense que ni le problème bi souvent hôpitaux yi di am pour des pour des postes de sang dootuñu ko amaat quoi donc appel la boo xamante ne comme ni ko souvent les les militants de Pastef di waxee c'est don de soi un don de soi nag boo koy def donc dootoo si xalaataat euh, fii laa bokk wala fii laa bokk koy def rek ba nga xamante ne c'est pour toute la population. ban kàddu ban kàddu ngay dénk ñi nga xamante ne ñoom ñooy les Pastef HLM ak ñi nga xamante ne mooy les projet de Sonko ban kàddu ngay leen dénk pour ñu continuer li nga xamante ne mooy acte de citoyen. non Pastef HLM moom li ñu leen di dénk mooy ñoom nañ nekk si li ñu nekkoon xam nga boo bokkee dans parti boo xamante ne dafa am benn idéologie. parce que booy dugg ci parti idéologie bi ngay gëm soo yow nga gëm idéologie Pastef pour bi rek mooy nit ku am Pastef quoi dans la vie normale des choses c'est quelqu'un boo xamante ne c'est quelqu'un d'engagé donc nañuy demee idéologie boobu noonu lu ñuy def nañ ko def pour l'intérêt de tous je pense si loolu laa leen xamee ah muy ñoom Tafa ñu ngi fii ñoom faatu le maire Abou vient de partir qui est Matar Margo Souba qui est le coordonnateur c'est des gens yoo xamante ne on se côtoie depuis on a grandi ensemble on peut dire 30 ans. Donc c'est des gens, avant nous dans le projet passé, c'était des gens, ils avaient déjà cette idéologie-là. Donc ils n'ont qu'à persévérer dans ce sens-là. Et que Nyan Yal, Yéni nous am pour HLM, am pour le Sénégal, Yal Moteli. Salam alaikum, euh, Mohamed Mokhtar Magasoba, coordonnateur de PASTEF euh, HLM. Alors, coordonnateur, activité, don de santé, en fait activité bi c'est une excellente chose vraiment parce que euh, don de sang moom dafa nekk loo xam ni day sauver des vies e au-delà de ça day faj aussi parce que euh, boo xoolee euh, maladie yu mel ni ay euh, leucémie cancer ak anémie donc don de sang day permettre ñu faj loolu lépp donc c'est une chose vraiment super super bien loo xam ni dafa am importance moo tax ñu kontaan vraiment ci organisation bi et di ñaan tous les euh, compatriotes sénégalais muy waa HLM muy waa Dakar muy waa Sénégal ñu mën a teewee tey bés bi maye deret pour sauver des vies. au-delà de cette activité je euh, le cadre de l'animation du débat. Absolument en fait on a un certain nombre de projets c'est pas le lieu en fait de dénoncer. Euh, lépp mais en tout cas li liñ ci mën a wax rek mooy c'est des projets yoo xam ni d'envergure yoo xam ni ça va permettre euh, au gouvernement ñu den benn genre relais parce que xam nga ni euh, état mënul def lépp donc il faut que ça commence déjà dans les communes donc projet yi ñuy teg euh, comme je disais tout à l'heure du ma ci dugg dans les détails pour bañ voilà que d'autres peut-être copient ou ou tout ça mais en tout cas daal c'est des projets yoo xam ni d'envergure qui pourront soutenir l'État te commune bu nekk bu defee loolu Euh, li ñu bëgg ñun ci sunu projet au niveau de Pastef dina mën a dina mën a antu incha allah. monsieur Magasuba lan moo waral li nga xamante ni mooy les défenses projet de Pastef ñëw fi nga xamante ni mooy euh, Pastef HLM en tant que yow coordonnateur Pastef HLM ban taxawaay nga mën a am pour ñi nga xamante ni mooy les projets de Sonko ñi nga xamante ni ay défenseurs lañ ban taxawaay nga leen mën a apporter. Euh, lu di leen remercier ci taxawaay bi. surtout de défendre le projet parce qu'en fait politique c'est pas facile on a des des ennemis un peu partout ennemis entre guillemets politique donc du animosité mais aussi on a besoin de personnes yoo xam ni ils sont là pour défendre le projet donc ñun euh, au niveau de de Pastef HLM dinañu bàyyi sunu waar

notamment l'affaire des LGBTQ mais également le président Ousmane Sonko wax ñu àdduna également si cadre de souveraineté monétaire bi xam ne ni annoncé na benn tournée si yenn dëkk yi sous bi ban jàngat du ma dugg trop dans ces détails là donc les personnes habilitées du pour euh, pourront vraiment euh, ñëw ci loolu peut-être li ma ci yokk rek mooy côté souveraineté bi euh, président Ousmane di wax donc faudra pas que ñun ñi yàkkamti parce qu'en dafa souveraineté dafa am euh, lu ko laal donc il faut poser déjà les jalons te moom la ñu nekk di def nii bu ñu paree ci loolu doog a mën a ñëw ci souveraineté monétaire ak euh, souveraineté alimentaire économique et cetera mais sinon d' autres considérations yi nit ñi di wax ak yooyu bon je vais pas rentrer dans la polémique nous on est là pour travailler donc on va travailler bàyyi opposition bi entre guillemets ñoom ñu wax. féliciter. alors lan moo nekk sa premier cap bi. justement j'avais dit que du ma par rapport à ça. je suis désolé je peux pas rentrer non plus dans les détails donc en fait dañ ma une mission boo xam ni comme j'ai dit hier c'est de fournir des logements à tous les Sénégalais. votre attention s'il vous plaît votre attention. daa ji leen lii lu ni fàng kenn du ko jeex. la ilaha illallah Mariétou Gueye regardez-moi ça hommage à Mariétou Gueye Mariétou était une battante Mariétou était une dame de cœur Mariétou était une infatigable qui ne pas d'apporter son soutien merci beaucoup que son âme repose en paix merci beaucoup vraiment votre applaudissement gars yi votre attention votre applaudissement Aïcha macha allah ok alors s'il vous plaît merci beaucoup le coordinateur patriote fidèle loyal envers le président Ousmane Sonko waxoon naa leen ko rek nee naa ko lu ñu fànn kenn du ko jeex ku dégg dégg ku dégg ku def dégg ku def soo dégg. c'est un petit mot mais bu ko def soo ko dégg. Coordinateur, merci beaucoup pour votre soutien indéfectible. Ouais, moi, je suis euh, agréablement surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je même pas au courant. Euh, di remercier énormément énormément et li ma gën a euh, tax ma ému sax c'est surtout euh, euh, Adja Mareetu Mareetu qui était avec nous doon def liggéey bu mucc ay vraiment ci euh, parti bi surtout au niveau des HLM donc mu euh, fekkeewul victoire bi mu doon loo xam ni vraiment lu lu métti la lu tiis la mais bon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu xaree ko àjjana. Euh, di remercier waa JPS HLM parce que il font un travail euh, vraiment extraordinaire au-delà de la JPS nous avons section boo xam ni c'est il y des hommes de valeur. donc section bi maa ko jiite c'est vrai mais euh, nous des coordonnateurs de cellules nous avons des présidents de commission c'est eux qui font le travail donc man je fais juste un rôle de superviseur donc bépp euh, bonne action bu am au niveau des HLM ñoom ñoo def liggéey bi peut-être que man la ñuy féliciter mais je pense qu'à travers moi on félicite toute la section des HLM tous les coordonnateurs tous les présidents de commission et tous les militants donc di dellu siwaat un petit JPS parce que euh, comme je disais tout à l'heure aux journalistes bi ñu nekk actuellement avec le projet qu'on doit mener état bi du mën a def lépp donc ce sera aux communes de porter haut le flambeau commune bu nekk bu liggéeyee li muy liggéey bien entendu avec un peu le soutien de l'État donc projet bi dinañ ko mener a bout donc ma leen di jaajëfal encore une fois et di leen remercier bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bi et di remercier aussi les euh, défenseurs euh, du projet de de merci beaucoup. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp ku ci nekk sa ak sa sant leen jox seen wàccuwaay man la ay sa tur ay dara Karara Pastef HLM JPS chargé de la massification en même temps <coughs> massification organisation du mouvement des défenseurs du projet de Pastef. alors ay sa tur ginnaaw mooy premier sentiment. mooy dama am mbégte ndax nga ñëw nga organiser don de sang fekk fi mbooloo bu mel nii. macha allah ngay wax comme wane na ne Sénégal liggéey moo leen tax a jóg. à travers message ngeen bëgg a véhiculer. waaw mooy dama bëgg a remercier ku ci mel ni coordinateur Grand Dakar Boubacar Diallo vraiment ñu ngi koy remercier bu baax au nom de la JPS e au nom de défendeur défenseur du projet de PASTEF. en même temps di remercier waale suñu coordinateur Matar Magasuba ak adjoint Abou Ndiaye di remercier waale aussi présidente femme bi et aussi euh, coordinateur section kii cellule yëpp waa damay bañ lim du juum en même temps di remercier waa JPS bi nag rawatina ñu yor organisation ñooñu foog ma tudd seen tur ndax boobu ba léegi ñu ngi jàpp te bàyyiwuñu ku ci mel ni Alioune Badara ak ku ci mel ni madame Samb di remercier tamit trésorier Boubacar di remercier aussi waa environnement ñoom aana Préra di remercier aussi waa finance ñoom Khadija Loum Issa siis di remercier waa les ressources humaines waaye nag remerciement bi yëpp kenn naa ko waral muy Pape Samba stratégie et plan ko aw ma fayam di ko ñaanal yàlla ñal na ko yàlla fay mook trésorier bi ak waa organisation environnement waaw am na yeneen jéego ci topp ndax fu mu toll ñu ngi dem ci hivernage te ñëpp xam nañ ne inondation comme il faut ñu génn sensibiliser population bi ci loolu la JPS beeg défenseur yeeg ak ñeneen waaw li may daanele mooy di gërëm le défenseur du projet de Pastef ndax wax dëgg neex yàlla mun naa ne <coughs> Pastef HLM mun nga ca mais lu ci bëri ñoom la aussi di remercier ku ci mel ni Mia damay bañ a lim di juum ñoom Diop maanaam ñoom Tina bëri nañ daal macha allah ñoom Awa damay bañ di lim di juum daal mais défenseur bi yëpp di sant ñëpp. waaw asalaamaaleykum euh, moi c'est Seydina Mohamed Ndiaye euh, JPS HLM euh, maa jiite commission ressources humaines bon xam naa damay damay aborder dans le même sens di wax ne après li nga xam ne moo nekk liñ constaté te mu nekk une collaboration boo xam ne waa gps la ak les défenseurs du projet. ci benn élan boo xam ne dañu def un ak citoyen parce que bu xam nañ ne instant bi Euh, banque de sang yi dañoo manqué deret donc ci élan boobu noonu lañ ñëw pour euh, def li nga xam ne moo nekk don de sang di wax ne dañ ci woo ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay jeunes ñu ñëw euh, jël référence li nga xam ne moo am ni au niveau des HLM. salaamaaleykum mbooloo mi man la Seydou Maïga di major banque de sang bu hôpital militaire de Wakam en fait dañoo ñëwoon tey fii HLM ci ci mission pour collecte de sang. les patriotes HLM ñoo ñu invité woon fii vraiment pour don de sang vraiment am nañ fi loo xam ni lu lu rafet lu ëpp sunu njort sax parce que j'ai eu à faire à consulter au minimum cent dix volontaires ba tax na ci cent dix volontaires am naa ci cent quatre aptes inaptitude yi nag c'est pas des pathologies yoo xam ne c'est des pathologies chroniques yenn yi défaut poids lay doon yenn yi nekk défaut age défaut âge na boo ko déggee maanaam mineur wala koo xam dafa dépassé les 60 ans jëm kaw quoi mais pour parler de façon ramassée daal maanaam alhamdulilah lañuy wax daal waaw ndax jot nañoo am 104 104 poches ñu ngi ñaan yàlla bu ñu demee di ko liggéey ñu am le maximum benn feebar bañ cee génn pour bénéfice u di leen wax ni prochainement ñun ñoo ngi fi hôpital militaire Bokaam la ñu nekk. ku ñu soxla mën nga ñoo contacter ci pour collecte de sang mën nga ñoo contacter 76 223 05 07 boo ñu contacter foofu rek dinañ xool nu ñuy def pour ñëw li nga xam ne moom nga bëgg ci organisation ñu defal la ko ci ci dara kay kat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ok jërë ngeen jëf ba beneen yoon merci